mën tuddee parce que xam nga dañuy politique président Macky Sall day politique soxla dëgëral nguuram te anam yi mu ko tàmbalee woon bi mu toogee léegi waa PDS ils en ont fait les frais avec l'affaire Karim Wade dafa Abdoulaye dafa dem maki ñëw ñëpp na reddition des comptes ñu ne d'accord mais biñ ci demee li ñu ràññee mooy dañu bëggoon museler maanaam tënk ba adversaire politique yi waroon mën a déstabiliser la gouvernance du président Macky ñu écarté leen ñu jugee ci Karim dal ci xalifa Sall Khalifa Sall metti woon na ba dara xam na ci dara parce que yaa ngi woon ville de Dakar coono buñ ci dajul amul ñu wér ci lool mu metti lool ñu écarté ko muy deux personnes li ma ne ku ndóbbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw Sonko li ñu gis mooy acharnement la ci jëm parce que tey ay plainte de toutes parts à la veille d' élection présidentielle alors que président di woote parallèlement un dialogue ça pose beaucoup de problèmes parce que tey euh, opinion bi ñëpp jàpp nañu ne lii nekkatul une affaire sérieuse c' une affaire politique bu dee bataille de l' opinion tey jàpp naa ne Ousmane Sonko gagné ko ba gagné na ko ba noppi te un procès politique nag il se gagne jamais devant le tribunal prétoire yi avocat yi dinañ taxaw wax ku nekk ku nekk débattre wax mais li ci am solo mooy président Macky Sall certes bëgg na gi mooy li ma waxoon ci korite gi waaye tàllal loxo ba noppi yat bi nga yor di rëq ndiggu gaa yi nangoo ko teg loolu aussi ça laisse à désirer moo tax it euh, mënoo woote dialogue tey ëllëgit ña war a bokk ci jaloog bi ñu teg leen ay ndëgg sërëx tegal leen loo xam ne ëllëg dialogue bu sincère duñ ko mën a am donc vraiment nekk lu ñuy rafetlu mais nag nous sommes de tout cœur avec le président Ousmane Sonko parce que jeu démocratique bi li mu laaj mooy ñu bàyyi kenn ku ci ne kenn ku ci ne nga war a man bokk bu waxtu élection jotee mais mënuñu képp ku jug ne dama bëgg réew mi rek bizarrement nga am problème ak yoon day mel ni man falaay daanele suba ma bëgg xëy ne dama soxla réew mi ñu indil ma loo xam ne amul bopp amul tànk amul genn donc vraiment je pense que ci wàllu boobu moom réew mi yëpp xam nañu ne li ñu mel nii moom dëgg nekk ci dégg lalu ko.